waaye lañu bañ ci toxal ba nag rek mooy mu weesu soixante-douze kilomètres ya ko wër li ñuy wax doxu wàññi am ñu koy tolloole soixante-douze kilomètres am ñu koy tolloole quatre-vingt-neuf kilomètres yi tegal sax tolloole yu wute la wër moom ci lim boobu mën nga ko faa yóbbu waaye lu ko weesu nag nga yóbbu asaka ji ba weesale ko soliwaay boobu boobu daal moom sañe su ko lu may da nga xam ne fa nga ko yóbbu ñoo gën a loru ñu nekk foofa mel na nga nekkoon ca Italie gis ne am nañu loru foofa ci asaka waaye fii nga bàyyi ko ci Sénégal ñoo gën a loru su boobaa kon lépp mën nga ko yónnee fii leen la nag nga joxe ko foofa su ma xat zakaroo topp tudd nañu laxaañal asaka aadaaban ay teggiin talaafat ñu di yet du xasilu yooyu danañu amal ak sawaaba yool ba asaka waxaluñ ko ay sunna waaye waxal nañ ko yetti teggin yoo xam ne sàmmoonteeg ñoom dana tax sa tuyaaba gën a bare wax ye ñoom tii bu nafsi mooy teyeg bakkan fii xaaji asaka ja teyeg bakkan mooy sedd xol mais asaka ji ngay joxe sa xol sedd ci te bañ cee tàng bu seet ne li may joxe mën naa cee faj aajo sàngam mën naa ko def ci buntu sàngam déedéet mais sant yàlla mi nga xam ne moo la jox ba ne la joxewaatal ma ci nàngam te loolu lu néew néew la ca loola loolu bi sa xol tàng mukk nañ sa xol sedd tuma an takkoon a topp mu nekk min wasati maalin di bokk ci tànneef yi alal xadd xala na bopp feeñ na dañ koy wax digg doomu rek waaye tànneef muy maanaam yi bu fekkee loolu dafa nekk ay qualité ak i façon doo sañ a seet la gën a yemaay nga di ci génne asaka moom sañoo ko kenn du la forcé itam ci nga seet la gën a baax nga génne ci asaka waaye nag kon nañ lay wax ne la ngay seet la digg doomu nga génn ci asaka lañ sopp nag mooy nga seet la gën a baax muy tànneefu alal ja nga génn ci asaka loola ngëneel la teggin rek la waaye waru la dañ neexee seet la digg doomu rek nga génn ca li sëñ laa génn ci la gën a yemaay kon nga jekki-jekki seet la gën a baax nga génn ci asaka ja waaye loolu dañuy wax ne teggin la ci teggini asaka bañ wañu waale ko fii taalis waa aj ñetteel seen astaturu mooy suturaal ga xanil xuyóoni wala si bët ya xaw far riyaa ngir ragal ngisal al mufdi kay aji àggale li xay bi diini jëm ci sikkal diine ñetteel ba nag mooy booy joxe asaka ji te ragal ne buñ ko dee séen da nga ca bëgg aw tagg mbaa nga gis ca sa bopp mbaa dara nga joxe loo ko keneen te bañ koo joxeel sa bopp li sax nee nañu bu fekkee xam nga ne doo ca ngisal doo ca bëggu tagg doo ca séentu dara moom nga joxe ko mu fés mooy gën ndax nga fàttaliwaale ku fàtte woon soñaale itam ku xawoon a tàyyeel waaye nag boo ci ragalee ngisal googu nag nga joxeloo ko keneen wala boo koy joxe nga làqoog ka nga koy jox rek kenn bañ koo yëg kenn bañ koo xam ndax ngistal bañ a dugg ndax ngistal moom day yàq diine pour ma zakatul fitri topp muurum koor saaxun benn saax lay doon xatte ji bu dana war xan kum walisi yéen waxam man ak walis ka nga xam ne xóotuxoo dundam ba toli ba sàkkoof na ko min kum ci yéen min muslimin te mu dib jullit bi julli xay shid dëxëri ci la ëpp ca dundub jamono ja muurum koor warteef la woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne dogal na ko ci kaw képp ku di ab julit muy mag muy gone muy góor muy jigéen muy gor muy jaam kenn ku ne war koo génneel sa bopp war koo génneel tam koo xam ne yaa ko war a dundal ci yoon benn bopp bu ne nag ab saax lañ ca war a joxe saax nag ba tey am na tukaayam am na waaye buñ koy tolloole ci peese am na ñu koy tolloole lu yées ñaari kilo am na ñu koy tolloole ak ñaari kilo am na ñu koy tolloole ak ñaari kilo yu tegal ba ci waa màkk ñu sax moom ñetti kilo la ñuy wax mbaa ñu naa ñaari kilo genn wàll ak yu demee noonu waaye mel neen daal ñaari kilo yi moom digg doomu na ci benn bopp bu ne nga xam ne bu dee yow dong ngay génn rek ñaari kilo bu dee ak sa doom nga def ñeenti kilo muy wéy ba noonu nga koy wàññee dafa mel ne fii nag moom bu fekkee ne mën nga ceeb ceeb nga war a génne ndax moo gën a am daraja te it moom lañ ëpp dundee fii ci réew mi mel na ne soo mënut nag ceeb nga génne pepp moom dana baax incha allah wal tonta na joxeef ko xorran gor musliman ku di ab julit daa faqrin ku di boroomu ñàkk boo génnee murum koor danga koy jox koo xam ne gor la julit la te loru na ja rek waaw koo xam ne gor la julli la te lor na ca rek boo ko joxee mu daal di baax doo ko jox jaam ndax jaam sang baak kàddul ay mbiram doo ko jox yéefar ndax yéefar lii ak jaamu yàlla la te ak jaamu yàlla kenn du ko jox ak yéefar sarax yi boo xam ne yaa ko coobare wala mu mën nga koo saraxu yéefar waaye buñ ne asaka wala mënu koor moom julli rek nga koy sañ a jox tey na ca loru bu fekk loru wu ca doog ko sañ a jox waxiya moom asaka tusrafu def na ko wëlbati mooy def na ko jox ila samaan jëm ci juróom ñett xadaduhum ñañ seenub lim xat jaa dikk na fil quraan ci alquran
yi ñu war a jox asaka ji nga xam ne moo war juróom ñett la ñoo xam ne sunu borom ci boppam moo leen ràññeel ci alquran ca sooratu tawbati
dil faqri mooy boroomu ñàkk maanaam koo xam ne dafa ñàkk ku ñàkk nag mooy koo xam ne amul lu ko doy dunde ci at mi amul lu ko doy dunde ci at mi te itam amul mecc mu ngi ko sukkandikoo amul kenn ko gàddul moom du mel ni mecc mu sukkandikoo du kenn koo ko gàddul ku mel noonu muy faqir mën nañ koo jox asaka loolu nag lu bari la ci réew mi wal miskin ak miskin miskin nag mooy ku amul dara ni ki moom reeru tey sax amu ko dañoo wuute ci nañuy firee al faqir ak al miskin waaye bu dee ci yoonu Maalik moom ni ma ko waxee lañ koy firee tumal xaami di topp aji liggéey ja dañoo jublu koy liggéey ci asaka ya mais nag ka koy laaji ak ka koy séddale ak ka koy wattoog yi demee noonu jubluñ dong ba nga xam ne mooy liggéeyal sëñ ba ca tool ba mu àlla fil qalbi ak ku ñu miinalub xol kama fil kaamil naka mu nekkee ci kaamil ba mooy ni mu nekkee ci alquran wala mu wal mu wallafati qulubuhum kuñ meenal xol nag nee nañ mooy koo xam ne day doog a dugg ci lislaam ñu bëgg nag xolam dëgër ci bu baax a baax bu ko defee ñu jox ko ko di sax nee nañ jox ko kenn ndax bëgg mu tuub di ko campagne moom léegi wees na di su ko defati waaw léegi daal mayees na koo jox koo xam ne moom day door a tuub ndax bëgg mu gën a dëgër ci lislaam te sax léeg-léeg nga gis ko tuub ay mbokkam jàmb ko wan ko gannaaw mu xat lool ku mel noonu kon jox ko asaka baax na wa fi riqaabi ak ci baat ya man nga ne wa firiqaal ak ci jaam ya ba tey maes naa jël asaka ji jënd cëpp jaam goreel ko wala fekk jaam boo xam day jotoo ab sangam da koo laaj ne ko ba ma joxee nangam ma goreel la ñu jox ko nag asaka ji mu mën a joxe ndax mu gore wali xaarimin ak ñeel aji leb koo xam daa gàddu ay bor te ba muy leb kat ci lu mënta ñàkk ci dundu boppam mbaa dundu njabootam moo ko taxam di leb topp toon bakkanam rek ne naa lebaleb daañu ma jox asaka dafa dafa dafa leboon ci loo xam ne lu fara far la te nag fay jafe ko ku mel noonu mayees na koo jox asaka wa fi sabilihi ak ci yoonam wa moom yàlla
la laaye ja wax ne wa fi sabilillahi ak ci yoonu yàlla ñu njëkk ñi ba ci ñenn ci ñu yees ñi ci boroom xam-xam yi dañ koy firee jihaad ci yoonu yàlla nga xam ne kay xare ji ci yoonu yàlla dees na ko jox ci asaka ndax jihaad ja muy jihaad ca yoonu yàlla am na nag ci boroom xam-xam yu yees yi ñu koy yaatal yaatal ba dugal ci mboolem yu baax yi mel ne jàkkaak daaraak yu demee noonu waaye dañoo wax ne innama ji nga xam ne moo tàmbali laaye ji innama sadaqaatu lil fuqaraa yi inama boobu day takk takk nag mooy nga ne nangam génnul nangam mbaa nangam du génn nangam léegi nag boo ko yaatalee ne lépp lu baax rek dugg na ci fi sabilillahi day mel ne kon inama jooju takk gam doon takk amatu fa te it bu fekkee da nga ne jihaat baat bi dafa yaatu weesu na rek xeex ak yéefar bi ci jeesi te xam noonu sax dëgg la waaye ñoom ñi wax loolu moom jihaad ci ngànnaay moo tax ñi wax boolewuñ ci jihaad ci xam-xam mbaalu ko nuru wabu nu sabiri ab doxandeem nag yàq tafii dana topp ab doxandeem mooy koo xam daa takk ci béréb te amul lu ko tàgganti mooy amul lu ko jàllale su fekkee ne fa mu dëkk sax am na fa alal waaye nag amut koo mën a lebal ba mu dem ba foofa kooku teewu koo loro bu fekkee ne fu mu dëkk nag moom am na fa alal te gis na ko mën a lebal fii ba mu dem ba àgg kon kooku loroo tudd aajo ñu koy jox
wanu di ba soppeef na xindahum fa ñoom ixraaju zakati génne muurum koor ma xantulooxil fajri wali si gannaaw fenku fajar min xabli salaati njëkk dem ci jullikaay ba bi ñee tey la bi sub korite bi daal dañoo bëgg gannaaw fajar fenkee bala ngaa dem ci jullikaay ba ñu jullee xiit ga jullikaayu korite ga nga génne muurum koor mi boo yeexee ba julli ji ba ñëw nag na nga farlu ci balaa jant bee so ndegam man nga ko nga génne ko joxe ko ndax bu jant bi soyee te fekk nga mën ko te defoo ko da ngay am bàkkaar ci yeex ga nga ko yeexee ba jant ba so tey du tee mu war la ba tey nag moom moo tax mën naa wakkari foo sib nañu taaxiraha ak yeexeem baax dëpp looxi sam si ci gannaaw fenk jant sib nañu gannaaw bu jant fenkee na nga di ko yeexee ndax bootul yeex gi ak sàggante lay indi maanaam nga fàtte ko far jant ba so kër sëy di ni ki dolli ga duuna laf sin ci dudul lant ñoom nag nee nañu lañ la wax nga joxe ko rek nga yem ci moo gën nga di ko ëppal ngay joxe lu ëpp loola liñ la wax rek mooy benn bopp bu ne ñaari kilo daal na nga ci yem rek waaye bul ko ëppal loola nag boo dee seet ci xiyaas day mel ni ëppal gi moo gën waaye ñoom nee nañu sib nañu ëppal ga wal amru digle ga bit tax siini ci sëngeel alal maanaam ci aar alal wal iqdaadi ak waajal ga wabil mudaawaati ak ci saafara ga hadisun hadis la baadin bi aji feeñ waaw nee na nag am na yetti hadis yoo xam ne ñoo ñëw di nu digal ne suñ alal buñ bëggee mu ñoŋ nañ ci génne asaka génne asaka ja moo koy tax a ñoŋ te mooy hadis boo wax ne hassinu amwaalakum bi zakati dee leen sëgeel mooy dee leen aar seeni alal ci joxe asaka ak beneen hadis bu wax ne na ngeen di waajal balaa balaa ñëw ci ñaan kooku mooy wax ne aiddu lil balaay bidduhaay maanaam boo ñaanee laata balaay dikk benn ñaan nga tax balaa ba teggi la mbaa bu dikkee woyof kon nag xeeti balaay na ngeen na ngeen leen di waajal ci ñaan bala ñuy dikk léegi mu ne wobil mu daawaati nag mooy hadis ba wax ne daawu mardaakum bis sadaqati na ngeen di faje seeni jarak mooy bu ngeen amee ñu tawat na ngeen leen di faje ci saraxe mooy saraxe day tax yow ci sa bopp nga wér day tax itam nga wérale kon nag saraxe baax na loolu dana tax a wér dana tax a wérale faslu ni ab dog la fil xaj ci aj faraidul xaj faratay aj arbaxun ñeent la la day xim fa ñoom aj am na ñeenti farata mbaa nga ne am na ñeenti ponk xam ne benn bu ci manqué rek moom dañuy jàpp ne aj amut fal ula bu njëkk ba anniyatu mooy yéene xalaamaa ci kaw li nga xam ne yushram def na ko yoonal bu njëkk bi mooy yéene ñu koy tudde armal boo dogoo ci aj ga mbaa xumra ga rek armal nga te loola moo tudd yéene boo dogoo ci xol bi mooy fas nga ci xol bi def aj ga mbaa xumra ga rek loolu yéene la tudd te it moo tudd armal kon armal ak yéene benn lañ teewul nag am na lu ci aju rek loo xam ne moom dana ànd yéene ja waaye ca dëgg-dëgg daal moom boo yéene rek armal nga suma du topp na nga lim ak tawaafu wër ga lil ifaada ñeel ifaada saaniyatan mi ab ñaareel laxaa ñeel yéene xalal moo tamadi ca la ñu sukkandikoo wër bi ñu tuddee ifaada mooy farata ñaareel bi moom mi ngi ëpp am ci bisu tabaski bi waaye nag bis bi jaale defoo ko itam faaw rek nga def ko ndax boo ko deful doo yeewi ko mukk mukk wër boobu ba tey farata la wasa yu naa sunug dox bay na safa diggante safa wala marwati ak marwa saalisat mooy aj ñetteel laxun nañ ñeel leen duuna miréet ci lu benn werante dox safa ak marwa dañ ko tuddee ci wolof daw safa ak marwa rek waaye dox rek la am na diggante bu ñu gaawee rek boo fa toll daañu ko leeral dox safa ak marwa daal wàññi ko rek kon muy farata muy ab ponk muy ñetteel ba su ma lu xoofu topp taxaw bi xarafata ci xarafa fasmaxoo na ngeen dégg fasmaxoo da ko da ko fee jaarale rabihatul arbaxati mooy aji ñeenteel ñeent ña ruumoo na ngeen sàkku maarifatan ak xam ruumoo maarifatan daaneel way la nee na taxaw arafa mooy ñeenteelu farata yi kon aj maak ay farataam mooy armal li neex tudde ko yéene tawaaful ifaada dox safa ak marwa ak taxaw arafa faslu li ab dog la fii sunanihi ci ay sunaam sunanu foo sunaam ya gis naa xasara fukk laak ñaar xindahum fa ñoom fii xaw li man joxe ka nga xam ne xaddaraa xam na bi xel mi fiq xin ci xam-xamu fiq nee na sunay aj yi boo ko dee wàññi fukki sunna laak ñaar faar ba ni yent min ha ci ñoom yafaluha dana leen def zul hajj borom aj ga za itmamin mbir mi borom matal la dal ihram fa armal ga amna ci yent yo xamne neena ba ngay armal nga leen di def yow mi aj dal jamono nga tollu ci armal ngay def yent sunna yoy le kuslun ca ngay li ihramin ñal armal yakko lol day nek muttasilan di aju jokk ci armal ga amna ca ngay lo xamne ni ñi sango janaba nga koy defé té té sus ci armal gi nga xamni boko defé ba nopi dal di sol sa yéré armal dal di armal fa saasa waaw ca ngay lolu sunna la tammi nga aju ci armal ga tajarud ak sumiku anil mahiti walis luñu ñaw tajarud sumiku anil mahiti walis luñu ñaw yat tasif dana joko bu dee góor daal moom sunna la bu xasee armal bañ a solo ci dara luñ ñaw ba mën a warub cër mbaa ñu yeewu ko sax mbaa ñu forcé ko ba mën a warub cër sax lu ñu mën doon rek dañ ko tuddee sax sunna fii rek waaye waru gar la bu ko defee rek am alamaan gannaaw ma armal laata mu yeewu ko bu ñu solee luñ ñaw moom góor daal di am alamaan moo tax léeg-léeg ñu tuddee dara sunna te fekk na waru gar la aj dafa am ay wari gar yoo xam ne boo ci bàyyi rek am alamaan illa bi lufsihi ndaraj ak solam izaran teraxlaay warida akuk lambaay misluhuma seenum kem la naalaani ñaari dal laasimo na ngeen taqoog alhuda jubga nee na nag bu dee góor bañ aaye ko sol luñ ñaw kon sunna la mu boole yett yi wut teraxlaay wut ak lambaay wut ñaari dal carax yett yi bu ko boolee muy benn ba dee sunna lay doon raabihatul arbahi aj ñeenteel yeente lil ihraam yi ñeel armal talbiyatun moo di wax la bayga takkoonu bopp dana nekk bil kalaami ci wax ja ñeenteelu sunna yi aju ci armal ga moo di bu armalee mu daldi tàmbalee wax labbayka ndax bu armalee lu yàgg te waxu ko sax alamaan daldi koy war rawante na nag bu fekkee farul sax wax labbayka benn benn yoon kon labbayka daa bokk ci ñu tudde rek sunna waaye fii mu nekk nii bokk na ci wari gar yi ni lañ ko waxe labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak kon yeen sunu ji aju ci armal ga rek moy ca nga la ngay def tam melna ca nga janaba tam sus ci armal ga ak bo de gor nga summi ko baña sol ñu ñaw sumiku ga baña sol lu ñu ñaw ba noppi itam nag wut yett yii te moo di lambaay ak caraxlaay ak daldi carax loolu sunna la kon ñetteelu sunna yi mooy boole yett yi lambaay caraxlaay daldi carax ndaxam sax daldi carax du cib sart waaye dañuy bañ mu sol ay bot ndax bu armalee dañ koy aaye sol ay bot bu fekkee am na yeneen dàll bu fekkee boti kese la am itam da koy dagg ba nga xam ne ay dojaram day feeñ waar ba ni yent min haa ca sunna ya tu xaddu def na leen lim li tawaaf ñel wër kaaba wër kaaba am na yent sunna yi ci aju machine mooy doxal tànk ba ci njëkk mooy booy wër kaaba gi bul war bala kenn yenu na nga dox ak sa tànk wa qublatun ak foon toj wa bi famin ci gimiñ aw bi yedni wala ci loxo ba tey yoon wu njëkk wa ci wër gi wër kaaw juróom ñaar lay doon yoon wu njëkk wa nag nga jaad foon doju al xajar al aswad ci sa gimiñ ndegam man nga ko soo ko mënut nga raay ko sa loxo jël sa loxo teg ci sa gimiñ te bañ koo muucu su fekkee nag mënoo ko nag ni ki mënoo ci àgg sax far ci doj wa nga dem ba fa nga mën a yem rek nga daal di junj nga daal di mépp sa foon daal di wax allah akubar te jàll léegi nag su fekkee mën nga ko yoon wu ne da ngay jàdd taxaw fa fóon doj wi ci boo dee wër kaaba gi waaye nag yoon wu njëkk wa rek la fóon doj way nekkee sunna yoon yi ci des moom nga jàdd fóon doj wi lu ñu soppal waaye àggul ci sunna ram lu rijaali ak laggum góor ña fi salaas ci yettee al óol ya di way jëkk bu dee góor bu dee wër kaaba tamit tawaaful xuddoom tawaaful xuddoom mooy war bi ngeen njëkk a war boo ñëwee taamu yaatu ñu koy tuddi warub nuyoo wala boobu fi ndegam góor nga sunna la yett yoonu njëkk yi ndegam yaatu na nga lagg ko lagg nag mooy xaw a ñukkaali rek ndax weesu na dox ndànk te agul daw daw bu baax bu dee jigéen moom desu ko sàkku ci moom muy lagg bu dee tawaaful ifaada itam te fekk laggoon nga ci wër bi ñu wax wërum nuyoo mi tawaaful xudóom ba tey kon tawaaful ifaada du am lagg boobu le lagg boobu daal jàppal ndegam yaatu na ba nga mën ko teew góor nga te muy ci tawaaful xudóom moom sunna la nga def ko yett yu njëkk rek nga koy def waaye yente ci topp moom doo ko lagg suma duxaaw topp ñaan nga xat yël yi dana topp fi tawaafi ci wër ga diiru yaa ngi wër na ngay ñaan loo bëgg a ñaan rek di ko ñaanal sa bopp di ko ñaanale képp ko bëgg a ñaanal loolu ba tey sunna la kon ñeen sunna yi aju ci wër kaaba gi mooy dox ak tànk yoon bu njëkk ba nga fóon doj ba nga tolloog moom ndegam mën nga ko yett yu njëkk yi nga lagg ko ndegam góor nga teyit muy ci tawaaful xudóom ak wër kaaba ga boo koy def ngay ñaan ñaan goo ngay ñaan booy wër kaaba gi loolu mooy ñeenti sunna aju ci wër kaaba waar baaxu ni ñeenti sunna li sax yi ñeel na dox safa ak marwa qublatul xajari te mooy foon doj wa ida zahara ndem namm naa génn leel masjid yi bàyyi ko ci jàkka ja li safa jëm ci safa dox safa ak marwa am na yeenti sunna ba ci njëkk mooy foo fekk dox safa ak marwa day sus ci wër kaaba soo wëree kaaba nag ba dem ba julli ñaar ràkk yi wër ga fa gannaaw maqaam ibrahim léegi daal dem dox ci safa ak marwa moo ci war a sës waaye dañoo bëgg na nga ñëw jaaraat ci kaaba gi da nga mën ngaa foon doj wi nga foon ko nag léegi door a génn nag wuti safa jàdd ngay jàddaat nag jaaraat doj wi foon ko nag bala ngaa jàll ci safa sunna la bu ñu wàññiwaale ci dox safa ak marwa taaniyatul arbaxi aj ñaareel yent ya xindal xudwati faroy teefoo suhooduhoo mooy yéegam nga xala safa ci kaw safa wal marwati ak marwa ñaareelu suñu aju ci dox safa ak marwa mooy safa aw doj la marwa aw doj la te it naqari wu ñoo yéeg sunna la koo ci àgg rek nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloog kaaba gi al israhu gaaw ga li rijaali ñel góor ña fii batnil masir yi ci batnil masir saalisat aj ñetteel la laxun na ñeel leen fii xawli nabi li ci waxi aji xellu ja nee na bu dee góor nag su tolloo fa ñuy wax batnul masil batnul masil daañu ko daañu ko wax tam diggante ñaari poto yu natax ya diggante ñaari poto yu natax ya des na ko wax léegi as diggante la su nekk diggante safa ak marwa bëgg lañ góor gu fa àgg nga gaaw boo weesu ko moo xam ma ngay dem la moo xam ma ngay wàññi ko la bu dee jigéen moom mën naa doxee nam doon doxee rek bu dee góor itam bu weesoo diggante boobu rek jotatul muy gaawate su ca tolloo rek gaaw boo weesu ko delluwaat doxee nam daan doxee nag moo tax man dañ koy tuddi daw safa ak marwa waaye lépp lépp du daw na moytu fëxe fee jëm fële day metti rek ci moom te santaani loolu diggante bi rek lay sàkku bu ci àggee mu gaaw ba weesu ko du xaawuxoo ñaanam nga faw xuma ci seen kaw ñoom ñaar bi xëyri xaddin ci ludul limit raa bi xat aji ñeenteel la laxun nañ ñeel leen faax daroo na ngeen wattandiku alfanada fen wa nee na ba nga taxawee ci kaw safa ak ba nga taxawee ci kaw marwa ba jàkkaarloog kaaba gi dañ ne woon jëmmi taxawaay ba rek mooy jëmmi yéeg ba nga yéeg ca kaw rek kaw safa kaw marwa dañ ne woon sunna la léegi na mu ne nga boole ci ñaan nag ñaan nga ngay ñaan boo nekkee ci kaw safa kaw marwa ñaan googu sunna la ñaan googu amul yemukaay mooy yet ñaan googu nag ràññeeluñ ko ne ñaan sàngam la mbaa ñaan nga diir sàngam lay tollu yaay seet rek loo bëgg a ñaan nga ñaan ko kon yéen sunna yi moo aju dox safa ak marwa mooy ba nga noppee ca wër ba ba julli ñaari rakk yi wër ga bala ngaa dem ci safa nga jàddaat jaar ca kaaba ga fóon doj ba door génn wuti safa safa aw doj la marwa aw doj la lu ci nekk nga yéeg ba ca kaw mooy ñaareel bi kenn ku ci ne boo ci yéegee nga ñaan boole ca mooy ñetteel bi boo toll diggante fi ñuy wax batul masil nag mooy ci booy dox safa ak marwa fa tudd diggante ñaari poto yi na tax ya bu dee góor bu fa tolloo mu gaaw ba weesu ko bu ñu dee jàngale aj moom léeg-léeg ñu ne nangam sunna la te fekk na daa bokk ca wari gar ya nit ki leen wax ne booy wër kaaba dox ak sa tànk te bañ a war ñu bañ laa yenu sunna la fi mu nekk nii bokk na ci wari gar yi waru gar nag li ko wutaleeg farata mooy farata soo ko bàyyee la nga doon def day mel ne defoo ca dara dara warugar nag moom boo ko bàyyi day am alamaan rek boo xam ne moo la cay war te du teel la nga doon def baax
amna benn cassette nag buñ jagleel aj ak xumra mi cassette bu leer bu yaato yaatu koo xam ne bëgg nga amuk leerlu ci aj bu baax a baax mën nga koo déglu
xaatimatu ndi ab mottali la alxaju aj yuxrij dana génne alfata jam sax mina dunoo bi ci bakkaar ya jumlatiha mboole seen wa min wa min baqiyatu xuyoo bi ak la des ci sikki yamu ak mboolim sikki ci des rek aj daal moom nee na ku ko def te defe ko na mu ware set nga ci ay bakkaar wecc set nga ci mboolem xeet sikki yépp laakin na zawaay lii nag yan tamit dana askanu li xayri xaqi muslimin ñeel ludul aqi jullit wa xayri faiti salaati ak ludul aji raw yi julli waaye nee na kat am na yoo xam ne nii moom boo ajee itam bañ ne set nga ci bakkaar set nga ci mboolem aq yi sikki yi am na ci yoo xam ne mbokku ci du tax nga set ca bokk na ca àq joo amee sa mbokkum julit àq jaambur moom fay rek mbaa nga wax ba mu jéggal la ko waaye aj ga du tax àq ja nga amee sa mbokkum julit mu wàcc la ba tey julli gu la rawoon ba tey nee nañu faaw day aajowoo nga fay ko rek ndax yàlla baal la yeexe ga waaye waaye kon jàppal ne julli gu la rawoon daal moom ba tey faaw nga def ko waaye aji gi du ko far misluhuma seenum kem la ñoom ñaar kafaaratun kafaara xat wajabat ba war na min ramadana bok ci ramadan aw zihaari wala zihaar qad sabata bam saana ba tey nee na bu fekkee amoon nga alamaan boo war a def ci weeru koor da nga caa dogoon te teglu ci alamaan mbaa nga defoon zihaar zihaar mooy nuróole sa soxna ak jigéen ju la araam araam tapet ni ki nga wax sa soxna ne ko yow daal yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw yaay anti alayya ka zahri ummi lu mel noonu boo ko waxee sa soxna loolu zihaar la wax ji ñaaw la joo xam ne ku ko wax soxnaam du tax soxnaam araam ko ne gannaaw yaayam waaye daa am alamaan bi ñu koy teg te daañu ko jàng ci téere yi mel ni arrisala ak yeneen léegi na saa yu ko alamaan bi waree moo xam ci weeru koor a ko waral moo xam ci zihaar a ko waral faaw da koy def rek waaye aj màkk kese moom lu tax loolu wàcc ko wajaa dikk na ne ànd na kulla zambin naka bépp bakkaar yasturu bopp dana am mu kafarun lu ñu kafaara la min xumratin tàmbalee ci xumra li xumratin ba ci xumra mu ne ba tey nee nañu boo umra dellu umra waat diggante yaari xumra yi loo fa defoon ci bàkkaar rek jéggal nañ la ko moo tax ñu wax ni xumra umra bu njëkk ba nga njëkk a def moom sunna la waaye boo xasee umra benn yoon nag sopp nañ at mu ne boo ko mënee nga dellu umra jiwaat te boo ko mën def ci weeru koor itam lay gën a ci ndax nee nañ na addis ba waxee umra ci weeru koor day wecc aj day taxaw taxawaay aj moo tax diggante umra bu ne moroom rek bàkkaar yi nga fa defoon jëggal nañ la ko
hadis ba nga xam ne albuxaari andi na ko dane alxumratu ila alxumrati kafaaratun lima baynahuma teg ca nag wal xajju almabrooru laysa lahu jasaaun illa aljanna wa xajjatun aj mabrooratun guddi guñ yéwénal laysa jasaa deet bay laxaa di ko ñeel siwal jannat ndare àjjana fiimaa ci la nga xam ne ubrisa feeña leef na ko aj guñu yéwénal defe ko nañ ko taamoo àjjana rek ay payam dañoo wute nag ci aj guñu yéwénal mooy lan
waxiya moom allati mooy aj ga nga xam ne lam yëkku amut fiihaa ca moom masamun bakkaar tafsiruhu piré mu masam zambul mooy bakkaar la daaman fa ña nga xam ne xali moo xam nañu am nañu ne muy aj goo xam ne kooku defu ca benn bakkaar jaddu ci yoon benn yoon waxee waxees na ne bala aha mabrorat mabroratun kat maxnaha maxnaam maqboolatun rek mooy maqboolatun lu ñu nangu suqnaaha jiital nan ko riwaayatan mbir mu dib nettali suqnaaha màng nan ko lay firi waaye moo jiital nan ko riwaayatan benn lañ am nañu ne alxajjatu almabroratu mooy alxajjatu almaqbolatu rek aj gu ñu nangu daal lañ bëgg a wax ne ajoon rek ay payam am ñu ko firee noonu waxiye moom nag allati mooy aj ga nga xam ne lam yekku amut fiihaa ci moom min kalaamin jenn wax ju aay ma ànnahu àndu naka moom atxama leele na fiihaa ci moom min taxaamin ci aw ñam wa machaate mu dox fil manasiki ci jaamukaay aj yi wa waqafate mu taxaw fi kulli mashharin ci bépp bérébu màndarga qad khurifa bu xamef na ko la hañal acc ka mashharil haram niki al mashharil haram summa jammala top mu rafetal fardan farata wa sunnat ak sunna la hañal ko wa kamala te mu matal ko aj gañu japp ne yewenal nañu ko ba yalla nangu nako te payam moy aljana modi aj go xamne koka rafetal na farata yaak sunna ya ba noppi itam xeeti jaamukaay yépp da ko doxok tànkam niki ba mbàyyi koo màkk jëm minan dafa dox ba mbàyyi koo minan ñëw arafa dafa dox ba mbàyyi koo arafa ñëwaat mustalifa dafa dox ba mbàyyi koo mustalifa jëm siwaat minan dafa dox ba muy dem di wëri tawaaful ifaada nga xam ne kon daal diggante yépp da ko doxok tànkam fépp foo xam ne taamu nañ ko fa taxaw tam ci aj gi niki almasharul haram mu taxaw fa nga xam ne kon yooyu yépp moom matal na ko bu baax a baax mu boole ca nag la ko yàlla dénk ci wërsëg mu joxe ca